Euh, yéen ñi nga xam ni da ngeen a bëgg a xam lan laay o ci au campus dinaa leen wax leen damay inscrire jiwaat dem jàngiwaat nekkaat étudiant ndax étudiant yi faw ma nekkal leen faaw ñu am koo xam ni moo leen di xeexal ambassadeur étudiant yi bàyyi la kon gars yi seetaan leen ma foofu dem naa. mooy dañ jox seen ak yële booy booy booy étudiant yi maa leen fi nekkal dinaa leen geral dinaa leen jox seen cër booy booy doxal booy wala gaawul booy.